abdan xadiman faaza bil ayaati askuruhu zukra allazina sharibu min azbi wa lil jinaani xurribu xustu xayaatan laa turaa li xayri mucjizatan baanat li husni xayri yajuudu lil jawaadu bil jiyaadi وسول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا يماتا ولا تنازع ولا شماتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين jërëjëf Seexuna Ahmadul Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seexuna Ahmadul Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seexuna Ahmadul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi teew yëpp suñu taali bi yi fas yéene jëfe ndigal tey jéggulu kàddu yi ndax ñu ngi demee rek la dañu dañuy wax rek waaye nekkuñu fi may jot lii suñu kilifa gu tedd gi teew ci xam mooy kilifa jotaay bi mooy suñu àddi yi ñu ñaan yàlla bàyyi ko yàgg yàgg may ko wér defal ko saxaat daar ñu ngi leen nuyu tur suñu abu baraka si abo moom di nuyu tout sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha yàlla nañ fi yàggati wér te ànd ngërëm sëñ bi di jot li bokk fi teew yëpp kàddu sëñ bi xam ne moo ko war a jëkk li jox ma ci ndigal ni mën naa ko jot li xam na ne sax lot naa ci lool ndax làmm yi sët li mu war a wax xawma ko waaye bala ñoo àggale waxtaan bi rek ñëpp ñu teewlu ñaanal suñu kilifa bàyyi ko ñaanal ki xam moo la jiite barab bii ñaanal saa fi nekkee rek day mel jëmm moo fi teew ñu ñu di fàttaliku ci ñaan ñaan ñëpp ñu teewlu ñaanal ko sama borom jéggal ak yërmande ak mbokk mi fi mi fi ñëw ñaanal dem mu xam ne ñu teewal seen diggante rek ñett téeméeri fan la ak juróom-ñaar fukk benn nga xam ne at ak juróom-benn weer rek la ñu ñaan ñu ñoo ñëpp sàkku ñaan balaa kenn jóg fa toog jàng Faatiha ak fukki Ixlaas benn juróom-ñaari inna anzalnaahu salaatu ala nabi man fa alaxee nas bi ko ñaanal sëñ Maam Mor mi nga xam ne moom moo moo moo moo daan jiite jotaay bi ak suñ yi moomu ak suñ bokk fi bàyyi ko yëpp ñaan suñu borom jéggal leen te jéggal nu xale leen àjjana yërma leen te ab ab sore tey ñaan yëpp mu ngi ci bu loolu wéyee sëñ bi mi ngi leen nuyu di la siyaare tey yëkkati kàddu yi ci kaw ndigal rek dañuy wax ndigal boo mën defal boo du mu defal waaye may fàttali bis bi lan moo waral bis bi ala tax ñu day fi bis bi bis li ñu jàngal li ci ñetti ñetti tomb yoo xam ne war nañ ko jàng xam ne ni ku deful loolu doo am li nga bëgg mooy kilifa dafa war a dafa war a am kilifa su ko defee doom joo am mu am kilifa soxna soo ku xam am na kilifa subhaanahu wa taala mooy kilifaam moo la jox lekkam nangu ndigalam moo tax ba mu amee soxna soxna nangu ndigalam soxna société yi nangu ndigal la moo ko may doom ji Ismaayil Ismaayil doom nangu ndigal waaye képp ko xam sàmm kër nangu kii nangoo nangoo am ndigal doo am doo am doo am ko am ndigal doo am ko ku ku jaar ci kon nag borom kër day topp ndigal subhaanahu wa taala su ko defee bu amee soxna soxna topp ndigalam soxna soosu bu amee doom bi topp ndigalam mooy wane bis tey bii Ibrahima daa topp ndigal suñu borom tax sa loo Ibrahima xale yàlla moom rek la kër ndax li Ibrahima topp ndigal suñu borom waaye bi Ibrahima gàntoon ndigal suñu borom soxna si dina topp ndigalam. soxna si mu topp ndigalam loolu tim Ismaayil la Ismaayil tim xam ne ci boppam ñaar ñi ko jur ñëpp dañu nangu topp ndigal moo tax ñu nangu topp ndigalam waaye ku nangu topp si ndigal borom ñu ngi yit nangu topp si ndigal kon loolu jàngal la boo xam ne war nañ ko ci gis te xool ko ci te góorgóorlu te defaa jukko yi xew-xew yu bari na loolu yu fi xew bari na waaye nañ xoolaat suñu bopp ak lan moo tax ba ki dem rek am na luy xew loo xam ne kenn mënu ko wax di ko tudd di askan bi te loolu mosu fee xew waaye lépp ku nëppee tànn nëppee la tànn ab rax moom lu dugg rek dana fa yàq dana yàq lu bare bari boo ji askan wii sëriñ Tuubaa feeñoon ci jikko taxoon ak jaamu yàlla damay wax ne ñaar moom sëriñ Tuubaa ci askan la fekk da ko yokk fekk mooy jaamu yàlla ak na am kilifa loolu ci fekkoon kon bu dara xewee lu mel ne dal ci ñëpp muy ji fi am moo jaay rek kooku ñu faat xam ne kenn mënu ko tudd ci wax ci tudd askan sëriñ bi waaye sëriñ bi moom noo ko sëriñ bay jaxte waxoon rek waxoon la la ma xam ne xànjar lu waaw dafa ne xaalis lu yéexul bokk ci bàmba lu baaxul bokku ci nañ bàyyi foofu jullit di fo foo gis ku ne waaye ma muy foo ko may xumaaga ma la bul gëm ni ko waaye ba wedd mu fo nga xam ne tànn boobu daña rek lépp mën na ci dugg si damay wax ne fu ñu dut ba ne amut waaye ku du bon am na moom lu ma dégg dëgg la mënut nekk waaye lu ma ci dëgg la dëgg la kon nañ bàyyi xel te yar njaboot gi te dañ yar ba ñu daata julli lañu war a tàmbali yar mooy dañuy wuta way jur yu baax yoo xam dañu aw ci saraat mustaqima jël lañu fa ñu war a jëlee xool jukko yañ ne war tànnee ak si si jikko yi boo ko waxee mooy mooy mooy nit ñu baax lañu doon ñoo xam ne ay gor lañu doon ay jullit nekk ñoo xam ne mbañam rus ñu doon waaye ku seexlu wu dara dara loolu seexlu na nekk mbañam rus te yàlla tax te mbir ay mag di wot ba ak si see loxo mu yàqu see loxo dara ci àdduna jëru ko te daa mel ne mooy loolu mooy li mooy ruur bi dugg ci biir di sëñ bi waxoon dara mënut dugg mënut dugg mënut dugg ñag bi dugg ci biir waaye li koy ruur ci ñag bi la jógee mooy ku bokk ci ñag bi noppi génn ci loo xam ne day yàq ñag nga dugg ko bi day day daal ruur rek kon loolu mooy yi fi xew rek waaye ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla tim sëñ Tuubaa waaye yàlla na suñu Tuubaa tim ci moom may a santaat sama rek sama sama ñoo ko ñoo ko digal sama bokk taalibe yi ñu gën a góorgóorlu ci ab yar aku taalibe ndax yoon yi kat ci bopp yoon yoon taalibe li nga xame woon murid ci boppam daw bari wax jëf laa bari wax nag mooy mat li jëf jëf mooy matt li wax waaye wax du mat li jëf mukk ci kon nañu fexe jëf ji gën a bari wax ji waaye ku ne ngal nga ne wax kenn def la wax dara lee ñàkk xorom la waxoon bul nit ki bu fekkee ne foog lu wax bu dañ kooku lu ma xam ne caa génn asgoor bu ne waaw waaw lay doon waaye bu ne déedéet la doon ndax kàddu moo diggante ci diine waaye mu génn ci diine kon ñu gën a góorgóor ci fonk suñu kilifa yi tey leen cër bi ñu war jox te yàlla tax te kenn ku nekk ci ñun ndax suñ tuwaa kat na bu dee koomu àdduna képp bëgg suñ tuwaa bu fekkee da nga ànd ak si dangaa boole ci boppam ba nappi nga nekk sa bopp moom du du du du du du du du xot du xot sutura bu ko ci àdduna mbalaam bu da nga dëng mel abi mbàkke bii mu boolaa mbooloo mu gën dëng mu la gën dëng nga ànd ak ñoom fekkee da jub ba mel suñu àll yi bi mboolaa mbooloo mu gën a jub fopp ñu ànd yow kon bi mu suñ noonu rek la bu ñu ko dott ci mbooloo bu ñu ko dott ci yëngu bu ñu ko dott ci dara nañu xool bis bi ab jariñ mooy bis mooy jëfal kenn ku nekk ñu dénk da nga ne ab ab sàmm nga sàmm nga doon lay laaj ñu jëfal ndax jëfal nga te jëfal li ci gën mooy bu réer bu ruural kenn ku ne mbooloo bu ñu la boolee day wax la la sëñ Tuubaa digal sa borom digal la ko te mooy jàmm yàlla da nga ko liggéey da nga ko bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi yu sew yëpp rek yooyu euh, ci bëgg wax mënu ko wax ci sama làmmiñ ndax ñàkk si làmmiñ yi toog sa kilifa dikk sa tàddu daa ko ci ñàkk mm, am ab yar ak teggin ci say kilifa waaye ñuy ñaan si Moussa mi taxawaay bi nga taxaw sa way jur yàlla na yàlla gën taxaw su sàmm ndax mm, ko da ko yokk ñun suñu xel dana ci baax a baax yàlla xam fu ñu gisee rek am nañu yëg suñu bopp loo xam ne mënuñu ko nekk li wax mbooloo kon may sàkku ci mbooloo yëpp ñaanal la yàlla bàyyi la fi ba yéen sëñ Mamoor àgg bëkki dem rek tarib alxuraan bi ko tuddee fii damay wax ne sañ Mamoor ñaar xam na ko waaye Nuuru Daarayni xam na ko kooku ci boppam ku ku xam kuy wax ak yàlla rek yàlla xam ne moom yàlla def na ko yàlla ko yàlla yàlla bëgg ci jiitu ñun ñëpp dañ ko ñaan ndigal ñoom ndigal suñu borom ak yërmandeem kon may euh, yemale foofu wax ji ci biir tey yàlla euh, di siyaare kilifa yu teew yëpp mbokki mbàkk yeeg busoo bi yeeg njaayeen seex yeeg looyeen yeeg ñi fi teew ñëpp nga xam ne Sëñ Tuubaa daa dafa seen maam ñu am fa ay jullikaay te am barab yu mel nii ma faa julle julewuñ fa bàyyi barab boo ñëw euh, ngi sàkk su barke ak feccil kóllëre ak feccil mbokk moo tax ñu ci barab bi waaye kenn ku ñoom am nga foo mën a jullee fu gën a yaatu fii noo ko mën defee jiitu fa sa bopp waaye jëlaat seen lañ am lépp xam ne lu ñu am suñu tuwaay ko may ñu ñëwaat téel boobu seetlu naa ko suñu fàllu muy muy muy barab suñu fàllu bi nga xam si Maam Mor waxoon kon sëñ bi sant nañ la gërëm nañ leen yi fi teew yëpp kenn amu seen pay yàlla rek am seen pay ndax kóllëre rek moo waaye yàlla mi tax ngeen ñëw fi yàlla na defal ko seen jot yàlla na nangu suñu jaamu yàlla tey góorgóorlu xam bis tey fàttali rek ndax moroom jaam mi taxaw nga xam ne bu yàlla bu sooboo yàlla ñun ñi kenn kenn mën nañ ko mën nañ ko jur àlaxira te te nañ ko te nañ ko lewatal te nar koo lewatal nii te ab suñu moroom jaam képp la yàlla ko bind bindu ak ruu la am ñu am ruu yàlla terale ñu lu mu ko tëraleewut te mooy terale ñu ñu mën a rendi ab bindeef dara ju fekk jaamu ko yàlla te loolu loolu yàlla rek moo teral doomu aadama kon doomu aadama mën naa dem ba kaw malaayka waaye mën naa dem ba yées golo xad xalaqa insaan fi ahsani taqwiim waaye summa raddanaa asfala saafiliin summa raddanaa asfala saafiliin jàggee doomu adama day sopp golo amul geen amul lépp déet doomu adama ni muy doone golo ni muy yéesee golo mooy jikko ja ndax dañuy wax jikko ji maanaam juddu bu rafet ci kaña kaña la yem ak golo ñoom seen judd daa rafet ak mbaam seen baay moom la seen maam seen bàjjan ñu dëkk foofee kon na lañu wutee lañu wutee ngees mooy sa jikko yu waaye du du yàgg jikko ju rafet juddu rafet jikko ju rafet gën jikko ju rafet moom booy sago doog sumi euh, sa waay baax na sama am baax na waaye fexeel sa baax sa wax bopp mu gën ndax yow ma xiyaam fa isaa nafi xustul fala ansa baynahum yow ma isib laa tasaalun fon saqal ma siinu fa ulaayka hum muflihuna waaye ma xam ma loolu lépp dañu ko bàyyi xel waaye buñ bu ñu xamee lépp dañ ko jaamu yàlla te dimbalee ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dañ ko dimbalee bi ak jub ndax li ñu war a fàggu lépp fàggu nañu ko li ñu war a defal lépp defal nañu ko wenn lay wenn lay ci àdduna wuy tee jaamu yàlla amuñu ko kon nañ ñaan yàlla mu gën mu li li li gàllankoor doomu aadama mi mooy bakkan képp taal mooy téye waaye leen bu doon bakkan mën nañu àgg fa fa malaayka àgg euh, kon doomu aadama malaayka dafa am euh, amul bànneex amul naqar moom doomu aadama am na naqar am bànneex euh, jinne am na naqar am bànneex waaye li tax ñu wutee ñu ñaar mooy mooy jukko yi yàlla yónni jinne yi yónni malaayka ci ñu leen doon doon ay yonent xanaa jib Seydina Jibril mi xam ne moo naa indi wax yi rek waaye taxawul yàlla yónni ko dama jox ndigal li ko dama joxal ma ko ci Muhammad na ma ko tasaare kon ñun doomu aadama ñoo ñoo fa yi yoroon maam yee yoroon ba assi si ñu dox yi ñëpp nañ ci xar suñu tànk tooy te góorgóorlu ci tey wax fii tuuti rek loolu du sama domaine sax waaye euh, dañ ne lu lu xew jàmbat rek euh, mooy li xew a ki dem ci safiru amaan te loolu njuumte rek la waaye njëggal leen te xam ne dañoo juum doomu aadama nag ku ne la ngay liggéey yaa ci juum ndax ki ko jiitu lool suñ loo jàmbaar la mi ngi liggéey Sëñ Tuubaa ci liggéey baax baax tey xam ne ne kuréel boobu fi dañoon lu bari dana yàqu ndax ñu bari bañ bu ko def yàlla dañ def ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir yël la ne bi sieb laa doo dëkk bi dafa am kilifa gu ñëw ko ah di ngay ko dara bawuñ ci dara mu ko ay di sàngam yàlla ma bind bind leen tere ko bawuñ ko te xam ne ko def mu rey la sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni woon tere ko ba wuñ ko Sëriñ Tuubaa mi ma fa wut tere ko ba ko man Abdou Lahad bu ma ko tere ñu nëbb ma ko dina sëkk doomu adama fekkee yàlla daa tere ñëpp tere ko yàlla nga suturaal ko ko doy ñu ci yéen baggal si ñi nga xam ne ñoo leen tànn jox jox mission boobu ñu ko doxal muy waa Sëriñ Tuubaa boobu di di di personnel bi ko defal dama bëgg Sëriñ a tànn na tànn ñu wér ci yoon wi xam na leen fi yoo xam ñëpp xam nañ leen mu tànn ci kuréel kër gu ne mu tànn fa aw nit ñu maandoo ñu jub ñoo xam ne dañ xam war ma dëkk bi xamee waa dëkk bi ñu jox seen loxo waaye jëmm joo xam ne da nga euh, ne mbéyum ko ñu jox responsable bi toll ne den den règle nit ñi doo du sotti il ko déglu lu baax kon maa ngi loolu ñaan mu tànn ci biir biir njabootu sëñ xam ne sëñ Tuubaa daa def seen maam sëñ Tuubaa ko def sa maam yàqutoo mu dootoo yàqoti ci biir nañu tànn ay nit ñoo xam ne xam nañ leen seen juddu xam seen ngor xam seen diine xam seen xam-xam ñuy ñu maandu te duñ tooñ kenn waaye mer nit tuumaal ko def ko loo xam ne dara ci àdduna jër ko loolu nañ ko bàyyi xel ponkal bu jógee soow jant wala fu mu moo xam fu ma jógee du ma tudd leen tudd na boo ñooy yàpp na yooyu gis euh, ne lañu sa kaw euh, xamu garab xamu fàlle yam te suñu saal bi daa doo xam ne nit koo xam ne yëroo ko yëroo doo leen màggandoo leen nee na loo def ci biir da tey waaye ko yor responsable bi toll noonu ne ko tuwaa yaa fi yor sécurité ba wala yaa yor lañuy teer yaa ko te yow fekk yow kooku ci ba mu juddoo ba ci ñu la nekkoon dikk solo maxtoom wala mu solo kaalaam gi di xabar xabar naan suñ ñu nangam loolu moo fi bari loolu dañ ko bàyyi xel dañu tànn nit ñi ñu am critères yoo xam ne critères yi ñu tànn nit ñi mooy mooy jikko yi loolu maa ngi ko ñaan sëñ Modou mu def ko ndax lépp seetaan rek seetaan moo bëgg a yàqale day bëgg na fekkale gii si gi giri yi war na ñii dañoo contre ñii dañoo contre kenn contre kenn waaye dafa am loo xam ne rek ay nit ñu xam waaye nit ko kenn xamut xamee woon nit ñi seen cër dëkk bii nañu war maa fi nekk nga xam ne sëñ Tuubaa daa def seen maam cër te yàlla tax ndax sëñ Tuubaa def dara fu dara nekk du lay suuxat yëkkati ko jëme kaw kon sëñ maa ngi jéggalu kàddu yi lu ci dëng sama màkk ñàkk mën wax rek waaye lu jib nag seen kii bi ñu teewlu ñaan yàlla nawet bi nga xam ne ci lañ tàmbali ñu naan subhaanahu wa taala ñu tàmbali bismillah ma àgg ci alhamdulillahi rabbil alamin te ñu wàññi njàmbat yi njàmbat yi bari na lool waaye nag lu tax jàmb rek mooy ñàkk sant yàlla ndax bu ngénnoon fii rek ki dëkk yi réew yi wër rek ay musiba nga am yoo xam ne ni nga xam ne ñoo xam ne ngi gàddu seen saak ngi gàddu seen mat la daw te xaw fu jëm yàlla mos ci loola nit ki nag bu ko defee lu lu lu lu deful kenn war naa sant sant seen ku ku kenn santut kon war nañu sant yàlla baax te dellu xam ne réew mi daal am na jàmm jàmm gi ñu am mooy sëñ bi ñu am rek bu ñu ko amutoon nag ñoo réew yëpp yem nañ farlu ci jàng alxuraan di sant sëñ daara yi dëkk ci koñ bii keroog bëggoon naa yow ci liggéey bi waaye damaa amoon xat-xat moo tax ñëw ma wax na si Assane Ndiaye moo jiite daara ji nekk fii ñu defoon fi ndabal daara ñu soññee ko kon ñu ngi ko soxna yi ñu ko soññee borom kër yi ñu gën a jàppale daara yi ndax dañoo wax bu xiif nit ko xiif moo gën tabax junni jàkk te tabax junni jàkk yàlla ko tawoon toon tàggam euh, picc fi tax mu defal la ay njëriñ ci ajjam euh, kon nag dañu farlu ci ndabal daar yooyu nga xam ne Touba Ca Kanam nañ ko jëloon ngir seetlu ko waa dëkk bi gox bu ko mën a yëg ci dëkk bi fu nga mën a yëgee mu yëpp mu yëpp Touba sax fu mu ci àdduna si ci réew mi yëpp nanga wut ndaba daara ku amul ay bool da nga ñëw jox la ay bool hmm. loo mën tuba doore nga dongo yi nga def ko ab sarax te bu lañ jox aw des soo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko maccaat wala ñu seeñu hmm. mu gën a a ñoree tibbal jox leen nga tibbal sa bopp nga tibbal leen ko hmm. bu nga ko defee yàlla nga tuba itam ci àjjana kon suñu maa ngi jégul baax te ñaan yàlla ñaan nañu ñu tasee tawfiq suñu tuba waaw waaw bisimilah mu ne mu ne si Moussa ko jox ay kàddu mu si yàlla aleykum wa rahmatullahi sëriñ Moustapha damaa yónni woon kàddu yu gàtt jëmee ko ci kilifaam yi ak bokk yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi sëriñ bi sëriñ Aliou sëriñ Habibu sëriñ Moustapha nee sant na leen bu baax a baax a baax yëg na ne moom moo yéene ñàkk waaye moom ñàkkul waajur ñàkkul waajur mboolem fu ko sëñ Mamoor féete woon ci taxawaay yéen a ngi koy féete foofa kenn ku nekk ci yenn kon day mel ni lu mu daan am benn rek da koy am ci mbooloo bu yoroon benn wayjur léegi ay wayjur la yor yu koy taxaw ci wet yëpp ne loolu mi ngi leen mi ngi koy seedeel mbooloo mi ci leen ci sant bu baax baax baax di xam ne day ñemeel ngeen ko lool wet li ngeen ko lool yéen a ko ñaanal fu ngeen toll di ko ñaan yéen a koy wet li di ko taxaw di ko ñaanal di ko ñaan lul loolu na doon sëkk nee kon mi ngi leen sant fa sant yam nee na mi ngi leen seedeel santu mbokk yi mbokk yii fi toog di ay kilifa bàyyi ko ci gox yu wuute ku ne ci ñoom romb na ay pénc romb na ay jàkk yu bari waaye wëllëre wi ñu seqal sëriñ Mamor mu leen indi fii ba léegi kon ñoom ñi ngi matal fu ñu toll seen wëllëre woowu seen diggante sëriñ Mamor ajjuma ma ne it noonu lay mel mboolem ñu fi daan jullee kenn ko ci soppi ab jullikaay amul li nga seqoon sëriñ Mamor doon ko jullee ci barab bi yaa ngi ko rafetal na ko daan rafetale nee na kon loolu mi ngi leen ko seereel bu baax a baax li des daal mooy ngeen ñaanal ko moom wëllëre wi ñuy sàmm seen digganteeg moom di ko sàmm ci seen diggante euh, seen wajur wajur bu fi jóge woon mu sëñ Mamor ngeen ñaanal ko moom ni mu ci bëgg taxawee mu taxawee ko ci moom it am na yéene lool ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax ba nekk ci ñoom li ngay jëflante ak moom ci jëflante bu rafet mu mën la koo delloo nu mu ko bëggee loolu rek moom moo yéeneem nee na lépp lu ci lu matadi wala lu nuru ak ak ak ak négligé seen diggante nee na nee na bëgg ko benn yoon bu sañoon lu mat rek la def seen diggante ak yéen taxawaay yu mat seen diggante ak yéen nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwut kenn kàddu yi ni ma ko waxoon xëy na duma ko ma a noonu waaye waxtu yu moo jot ñoo ngi jégalu asalaamaaleykum. baax na jërëjëf waaw sëriñ Aliou nee na mi ngi sant sëriñ Habibou bu baax a baax a baax nga xam ne moom sax. bëgg koo jiite waaye moom moo taamu mu jiite ko moom moo bëgg mu jiite ko mm-hmm. nee na mi ngi ko seedeel mbooloo bu baax a baax di ko sant waaw nee na nee na moom a jiitu moom it <laughs> ci julli gi la jublu waaw <laughs> nee na man jiite moom dara kon <laughs> waaw moom laa nee na bëgg mu jiite ko ci julli man bëgg koo jiite julli waaye moom nag moo taamu mu jiite ko ci ñu koy mën nag yàlla nañ fi yàgg lool sama mu yàgg ñu jiite waaw nee fii ñu koy man yàlla fi nee fii moo koy man rek yàlla na fi yàgg ñu di ñu jiite amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf ñu tàllal sëñ bi ñaan ko